Bonsoir, c'est Malim On est ici à Kermassar et je crois que le problème, euh, nous le connaissons tous. Donc depuis 2005, on est sous les eaux et les autorités n'ont rien fait comme je l'ai dit à chaque fois, on était dans le même problème que Guédiawaye il y a de cela 5 ans 10 ans. Aujourd'hui, Guédiawaye est réglé, c'est parce qu'il y a le frère du président qui est là-bas même. Et nous qui sommes de Kermassar, nous sommes dans les, dans les, dans les corbeilles, parce qu'il n'y a pas un représentant digne de son nom qui nous représente au, niveau de la hiérarchie supérieure. Et je crois que la seule solution qui se pose, c'est de canaliser les quartiers de Kermassar. On dit Kermassar Malik, tous les quartiers de Kermassar Malik. Parce qu'à Kermassar Sud, on peut dire que la chose est réglée, sauf c'est à Kamil pour ça, ça persiste. Mais ici à Kermassar, non, on n'a pas de canalisation et les seuls, canaux, qui restent ici, ce sont les anciens tuyaux de la, du lac d'Aguerre que l'ancien ministre Omar a autant en 2009 qui avait, euh, amené, qui avait amené ces tuyaux-là au moins pour soulager les populations. Aujourd'hui, ces tuyaux constituent encore un autre problème parce que tous ces tuyaux sont, sont bouchés. Donc, demande au gouvernement, suite au président de la République, qui avait déclenché les 15 milliards pour les canalisations des parcelles, que les, quartiers de Kermassar Malika aussi en font partie. Si on dit les quartiers de Kermassar Malika, on parle de l'unité 11 jusqu'à l'unité 17, 11, 12, 13, 14, 15 jusqu'à 17, les quartiers de Amdalaï, Darumisset, Boul, Goubales, quartier Pambeng. Donc tous ces quartiers-là, il y a des centaines de familles qui quittent actuellement par quartier, des centaines, 200 familles qui quittent donc, si vous voyez la catégorie aujourd'hui, presque le est vide. Maintenant, on est euh, dans notre, dans notre ras de bol, on n'en peut plus. Ce qu'on veut, c'est que la force d'urgence soit installée, les eaux dégagées et que la canalisation soit faite dans les plus brefs délais. Il y a le ministre qui était là, il est venu deux fois, accompagné du préfet, sous-préfet et le maire euh, Moustapha Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas amené d'équipage euh, de taille pouvoir évacuer l'eau. Mais le sous-préfet et le préfet, ils viennent de prendre fonction. C'est eux qui, se relaient à sa fois pour nous calmer, pour nous dire de ne pas faire quoi que soit. Mais aujourd'hui, ce matin, les garçons ont déconné dans les rues de Kermassa. C'est parce qu'on n'a pas On a pas sans sincèrement. Les rues sont coupées, les maisons inondées. Donc, seul l'État doit prendre ses responsabilités et canaliser les quartiers. Je crois que c'est ça qui nous reste. Merci beaucoup bon salaamaaleykum euh, waa Kër Massar ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar euh, maa ngi tudd Mandiaye dëkk Kër Massar depuis l'an 2000 donc euh, bu taxawé fi tay di wax c'est parce que communication dañuy jallalé waat à chaque fois parce que comme niñu wax toujours rek communication bi yàgg naa jàll mais tay ci tay dafa raw parce que depuis 2005 jusqu'à présent ñun tay tay ci ndox la ñuy dund ci ndox lañuy ci lañuy ñuy defee suñuy besoins yoo xamante à chaque fois talatuñoo lekk talatuñoo naan talatuñoo def scolarisation y a rien du tout Kër Massar mérité na beneen vision boo xamante ni pas la vision politique politicienne quoi donc euh, ñun lu ñuy solliciter gars yi mooy à ce que étant donné que dañoo am Parcelles Assainies donc Parcelles Assainies donc dafa war a am

ce que ñu jàppale ñu ci liguey bi mu gëna mëna mën yoon donc kàddu yu jar muy bëri ndaxte suñuy xol mo fess donc fi lay jëmale kàddu yi am na ñu nga xamné ne ñëw nañu fi pour mën leen jàppale si préfet mo fi ñëw ak préfet ak le ministre voilà ñoom rek ñoo fi ñëw mais jusqu'à présent amagul dara lu concret lo xamante ne nii ñun recevoir nañ ko ni mu nekk lu leer donc jusqu'à présent lepp ci ay parole rek la tënk amagul dara lu palpable loo xamante ni bon ñun instant mën nañu mën wax ci maire quoi parce que l'année passée la fi jaaroon ñu wax wax inondation mu ñu taw yàlla la mënu ma ci dara état donné ko lan la ñu waxoon donc cette fois ci aussi tamit pas besoin sax ñu koy jéem a contacter waat quoi parce que à son niveau waroon moom waroon na mën am beneen taxawaay quoi ci biir Kër Massar bi yëpp quoi bañ am ay particularités comme Kër Massar Sud euh, comme Kër Massar Nord quoi. mais lan ngeen jàpp mooy solution léegi. bon mooy actuellement ay problème la ñu jural parce que moom moo bouché benn ndox ay canalisation yi digne de son nom lay doon quoi. bu ñuy wax solution mooy daar daar daar léegi mooy li nga wax ni non terme. d' accord non dañuy évacuer ndox mi quoi. solution immédiate loolu kese lañ ci soxla. ok c' est bon solution immédiate. donc mooy à ce que ñu indil ñu benn moto pompe boo xam ne dina mën a évacuer ndox mi mën ko jaarale soit à l' intérieur de la forêt de ce fait ñun ñii dañ mën a pomper après nag voilà c' est autre chose. voilà loolu kese la quoi waaw sonn nañ ci trop du ceeb du diwlin mën nañ ko liggéeyal seen bopp mën nañ ko xam ni day defee. ok sonal nañu trop ndax bagage yaa ngi nii kër gaa ngi fees dell am ndox fii lañ dëkk nii ci rëkk bi nii mi ngi fees dellu daal ñaari kër daal moo fi des ñëpp génn nañ ci ñu toll nii treize la treize ñëpp génn nañ une treize la ñëpp génn nañ suñu bagage yaay nii amuñu fu ñu ko dugal loolu nii est-ce am na autorité bu leen ñëw seet pour jàppale leen non non fii de kenn ñëwagu fi kenn ñëwagu a bagage si daal ñun daal soon nañ daal sonn nañ torop moom waaw te suba ba ndëgg ni si ndekki wuñu añuñu ñoo ngi nii di roñ ay bagage rek di génn ok